sotti xeer wi tàmbalee ko université bii ngay liggéey di ci liggéey Serigne Touba installation courant bi wala dolli ci téeméeri million ak ñaar fukk ci ñoom ci liñ ci war buñ ko liggéeyoon dañ leen koy fay moom it da koy def addiya moo tax directeur it loolu dana ko def ci université bi mu ni nag mu téeméeri million juróom-benn téeméer juróom-benn téeméer juróom-benn million juróom-benn téeméeri million tantam nag la ca gën muy buntam bii ci yow sëñ Moustapha mii nga xam ni da ngeen yàgg lool mu def ko bàyyi nag def ko sëriñ def ko nee naa ko délégation bi sëñ Moustapha àndal tey teerlu moo mu defal ko kenn nee sëñ Moustapha bokk na ci cant mais wax na la ko léegi loo am ci moom sëñ Moustapha moom lu ma am ci moom ci yow ci moom la kon nag mu ngoog cant googu rek Mbàkke moo ko indi waaw mu la nag ay kaddu. waaw jërëjëf sëñ bi wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax di gërëm ñu ngi ànd ak suñu président conseil d'administration sëriñ bay Dia Khalifa ak euh, yàlla defal nañu post bi buñ koy def Moustapha la te dëkk bi moom ku ñëw ne Moustapha moo fi def post buy indi courant boo xam ne courant dootu ko bëgg Moustapha ne moo jëkk a sëriñ bi sëñ Modou Moustapha moo jëkk a sëriñ bi moo tax ñu am yaakaar sëriñ bi pour nga ñaanal ñu ndaxte daaw bu ñu defee juróom-benn post ak euh, juróom fukk post yi ak ñett <coughs> bu mbay waxee ba pare président génn ndax ñu oo oh, félicité ñu. Ah, dëgg la dëgg léegi ne ma léegi nag lan la ñuy def est-ce que am na lu des. ma ne ko ah président de <coughs> lu des de mooy. <coughs> Touba nu muy màggee dafa gaaw léegi nag amoon nañ ci suñu projet yi benn poste boo xam ne. mu ngi ci boor gannaaw dëkk bi nga xam léegi Touba dañ koy séq ak ñaari poste mooy bu nekk Mbàkke ak bii ñuy waaj tabax nga xam ne suñ ko defee dinañ jël dëkk bi xaaj ko ñaar benn poste bi jël benn beneen bi jël luy màgg ci dëkk bi loolu buñ ko defee moom léegi Touba rek la nañ problème courant bi mu ne ma defal léegi mu valider projet bi ndax poste Touba bi moo tax mu valider projet bi nekk cent millions d'euros maanaam juróom benn fukk ak juróom benn milliard donc moom poste Touba bi moo tax mu valider ko léegi nag loolu lañ ñëw tey jii nii teg si xeer bi nga xam ne léegi ba muy jeexati Touba dootul amati problème courant si ndigalam mu wax ñu ko ñu nekk sa def ko ñu góor góorlu si ba taxawal ko ni mu kii bu yàlla c'est en combien de mois vous allez faire ça شاء الله donc loolu buñ ko defee fu mu toll nii wàllu courant jeex na di sant nag di bëgg rek yeneen dëkk yi tamit yëpp ñu ngi si commencé nañ ko waaw sëñ Moustapha wax nañu ko dëkk yëpp mooy fatlawul kii bi fatul fata yooyu ah, bu commencé nañ ko dem donc yeneen dëkk yëpp nañ ko def bu soobee yàlla di saa ko rek mbàkke nga bëgg rek loolu moo ñu fi juba <laughs> moom na la ko moo tax ba dégg jërëjëf laa ma mën a nuyoo moom laa ma mën sante am nga ko bi nga toogee waaw léegi nag leeral ko li nga bëgg a def mi ngi ànd ak doom sa doom nag Mohamed Sylla ak Makhtar Diop ñoom waaw li lii lañ ci amoon mooy bu nekk Mbàkke buntu Mbàkke mhm. moo jëloon dëkk bi yëpp comme dëkk baa ngi màgg mhm. te nu muy màggee gaaw na mhm. dinañ dem ba bii dafay fees moo tax nag léegi ñun bii lañuy teg tey su paree léegi dañuy xaaj dëkk bi ñaar léegi bii jël lii bii jël li ak liy waaj a màgg donc réglé nañ problème courant waaw te te bii sept sept milliards ji bi sept milliards sept milliards lay jar poste bi sept la léegi buñ ko waxee président tamit fekk lettre université bi ñëw muy six cent million président la ñu def leen waaw lépp daal moo ñu ko sant nun de moom daanaka dañoo ne ci biir sëñ bi ba tax na cantuk sëñ bi rek ci la ñuy tàmbalee. dëgg la. bi nag kum xool bane ne man xaw ma nu ma koy sant. kooku war naa sant yàlla. dëgg ndax loolu du lu woyof. déedéet gi bu dee lu nuru euh, ku ko xamul. mën na xool leneen. ndax moom tey. lépp ngi fi. lu fi waay indi <laughs> wala nga jox ko mm. fekk na aw des la mm. sëñ Tuubaa desal na ko ba mën koo joxe kon nag bu fekkee ne demb ci timis bi muy taw mu ngi wax loolu ci moom mm. mu ñëw mm-hmm. eh, sànq nii rek jukki bi mu yoroon ak cant rek ci la ci ci sëñ ci sëriñ bi mm-hmm. ak sant le ko yàlla dëgg ci Tuubaa ak màggal gi mm-hmm. loolee nag bu yàlla dogalee nga am taw feexu ñëw du yow yaa ma booleeg sa bopp président Moustapha Niass moo ma la dénk ah ma ànd ak yow mu ànd ak président daal di di di ko jàppale. léegi nag bu yàlla dogalee ngeen ñëw ba ci ki nga xam ne nag amuñu lu dul moom ànd bi lu mu rëy rëy rëy ak ku ma mën a àndal ci àdduna bu sëñ bi noonu ba ko ma duutuma ko gees sax waaw foofu mooy mbir mi kon nag boo àndee ak secretaire sénéral ànd ak sa PCA waaw président nan conseil d'administration ànd ak say directeur yi la gën a jege ñëw kenn ku ci ne am na taxawaay bu rëy bu mu taxaw sa gannaaw te bu ñëwee ci sëñ bi it rek lay leeral sëñ bi nag waxuma la Sénégal mais adduna bépp ngi ci wetam hmm. waaw te du kuy sant kuy tege hmm. déedéet du kuy tege nag moom hmm. moo tax bu lay sant sax ma neen mbir lay doon te te na lu ne nag. dëgg la ndax bu ne woon fii ba ndakaaru dafa soxla ñu def ay làmp ci mbedd yi rek fu ne ñu jàdd ko ngeen def ko waaye du ko def li muy def lu ko nit jox rek doy na ko te tax na nag ci biir cantuk sëriñ bi euh, man maa ngi ciy santaat yàlla ndax bu fekkee am na benn yëg-yëg ci man ngir nu nit jàppee ca moom damay santaat yàlla ci loolu di la santaat di di la nee mu leen boole nee moomoo boo sa bopp ci moom moom moomul boppam ci yow waaw na kon tàllal fasal